weeru tamxarit mooy weer bi njëkk ci atu jullit ñi waaye tamit dafa bokk ci benn ci ñeenti weer yàlla tudd ci alquran ci wax bi mu wax ni nag limu weeri yi fa yàlla fukk la ak ñaar ci atteem yàlla ci ndogalam ba yàlla sàkkee asamaan ak suuf mu dal ci def nag ñeenti weer yu mu ormal di weeru tabaski weeru diggu tabaski weeru tamxarit ak weeru ndeyu koor weeru tamxarit weer bu am ngëneel la weer bu màgg la ngir yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam da ko askanele yàlla ñu daldi koy tuddee weeru yàlla bu ñu ormal bi bu ñu màggal bi dikk na ci xadis abu hurayra radiallahu anhu mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne koor bi gën ci koor yi gannaaw weeru koor mooy koor ci tamxarit waaye tamit julli bu gën ci julli gannaaw julli farata mooy julli bi nekk ci digg guddi gi lii di tooñ ak def bàkkaar dafay feddaliku ci biir weeru tamxarit kom nu muy feddalikoo ci bépp weer loolu la yàlla wax fala tazlimu fihinna anfusakum bu leen tooñ seen bopp ci weer yi donte tooñ nag lu xaram la ci bépp weer ibnu abbas mu ne la yàlla wax fala tazlimu fihinna anfusakum bu leen tooñ seen bopp ci weer yi loolu ci weer yépp la topp borom bi tabaraka wa taala dal di jagleel sempi ñeent ci weer yi mu dal di màggal orm bi mu amee waaye tamit màggal tamit def ci bàkkaar naka noonu mu màggal ba léegi tamit jëf ju baax bi nga xamante niñ ko defee ci weer yooyu le lii di woor ci weeru tamxarit ngëneel bu màgg moo ci am ngir moom moo gën ci koor gannaaw kooru ramadan dikk na ci xadis yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daldi koy laaj ana ban julli moo gën gannaaw julli farata waaye tamit ana ban koor moo gën gannaaw kooru weeru koor mu ne julli bi gën ci julli gannaaw farata mooy julli diggu guddi waaye tamit koor bi gën gannaaw weeru koor mooy koor ci weeru tamxarit